destination Parcelles. waaw ñu dem. Dakar nga màggee de. waaw miin naa ko nag fii laa juddoo fii laa màggee. si yan circonstances nga màggee biir Dakar. Euh, je suis né à Grand Dakar sama kër maam foofu la samay waajur nekkoon fa nekk ba am bag ci anne bi may def bac la sama papa doog am këram Parcelles Assainies ci jamono jooju la toxu Parcelles Assainies je suis resté à Grand Dakar. parce que boobu maa ngi préparé bac. alors en parlant justement de sa waajur yi yan valeur la leen lañ la inculqué ba nga xamante ne tey jii moom ngay doxee. muñ ak jub. nga xam ni boo amee da muñ boo ñàkkee it li nga yor nga wala li say waajur am nga yem ci loolu. muñ jub ñaari valeur yooyu nan la la accompagner ci sa cursus scolaire. moom mais xam nga cursus scolaire en général du. boo juddoo ci quartier yu mel ni Grand Dakar màggee ci quartier yu mel ni Grand Dakar tentation yi dafay bëri. c'est vrai que la était analphabète mais bon elle tenait à ce que nga ñëw réciter sa leçon jox nañ la devoir ndax def nga ko. bi nga demee de la fosse nga doon jànkoonteeg li nga xamante ne mooy matière scientifique. bon yàlla mayoon na quand même jamono jooju globalement j'étais assez brillant. en tout cas première année bi j'ai souvenance sunu classe il y avait que cinq ou six j'ai eu le privilège d'en faire euh, partie. en fait foofu la amee conscience fondamentalement que amoon na ay capacités yoo xam ni mënoon na ma yóbbu plus loin. ku wax waxu Dakar xam ne que Dakar communauté yu bëri ak diverses ñoo am. Hmm. Ah, séeréer jaamu tukulóor wala tukulóor jaamu séeréer yi. alors mm. nan ngay jëmanante justement ak ñi nga xamante ni mooy euh, la communauté euh, dakaroise. non au départ moi je ne vois je ne vois même pas ces différences. bu ngeen nekkee dans le quartier doon ay xale euh, doo xam ni kii tukulóor la kii séeréer la ci ci mag ñi nga koy déggee sa ngay dégg sa wayjur wax ak beneen xaritam beneen dëkkandoom ne ko. yow séeréer nga jaamu tukkuloor nga yow waalo waalo nga yow leneen nga. yaa ngi wax un peu si li nga xamante ne mooy sa jeunesse est-ce que am na benn fait bu marquant bu tax tey jii nga doon li nga doon si sa jeunesse. mes parents ont toujours voulu que je réussisse et très tôt très bi may xale dañ ma inculquer valeur boobu foog nga am dimbali say wayjur foog nga def nii et je voyais aussi des personnes yoo xamante ni. Euh, ñun ñoo bokk environnement moo xam ay mbokk lañu moo xam ay dëkkandoo lañu et tu les ñu euh, ci jamono jooju ñuy bu weer wi deewee ñuy dimbali seen i waajur ça ça m'a beaucoup marqué mais le fait qui m'a le plus marqué dans ma vie au Sénégal c'est la tragédie du Joola bon jusqu'à présent man gëmuma ni euh, on a eu près de 2000 personnes qui sont restées en mer moi, ça a été un traumatisme. Même en tant que Premier ministre, je m'intéresse beaucoup ci transport en commun. Euh, souvent, je pose des questions. Mm-hmm. mais li nekk ci ginnaaw c'est est-ce que jël nañu disposition yi pour loolu ba ñu dalati. yaa ngi wax sànq lu am solo maanaam wàllum diversité culturelle bi ñu am fii ci Sénégal environnement bu jéggi dayoo alors est-ce que loolu influence na dara ci sa identité wala boog sa gis-gis euh, ci àdduna ji. ah oui man bu ma gisee nit du ma xalaat li du ma xool li mu doon je vois d'abord la personne c'est-à-dire que c'est ce que la personne peut avoir en termes de beauté intérieure di nekk ci moom. et là je regarde un lan la ko mën a jàppale lan la ma mën a jariñ lan la ma mën a jàppale ci ci ci ci jëflante donc euh, en général duma ma xool loolu mais loolu boo juddoo Dakar màggee Dakar mun mën naa wax ne lu yomb la parce que à l'époque en tout cas quartier bi moom juddoo. Grand Dakar dans la maison il y être quatre ou yoo xamante ni ñii ils venaient du Bundu dañ fa dañ fa luye woon nekk ñii c'était des Wolof ñii c'était des Sérères yu doon liggéey finalement kër gi ci boppam reflet wu Sénégal lay nekk. alors nañu wax un peu nga xamante ne mooy sa étude supérieure fan nga jaar ban cursus nga jaar. alors euh, man lycée de la Fosse laa jàngee j'ai fait ans euh, j'ai eu le le bac j'ai eu un bac G. Et mon idée, c'était d'aller à l'UIT. Après, j'ai fait sciences économiques. Et à un moment donné, j'ai hésité d'aller faire droit. J'avoue que j'avais beaucoup de euh, flexibilité. Hein. Euh, à l'époque, capacité, dimbali woon na ma ko mayoon na ma ko mënoon naa ci réussir que ce soit en économie ou en droit. est-ce que bi nga nekkee université daawoon nga bokk yenn association yi vie euh, justement euh, associative bi est-ce que vous étiez engagé. Euh, j'étais dans les mouvements estudiantins mais pas de manière bu fës non mais dans la conception j'étais toujours là. j'ai toujours un militant du social par contre. Ah toujours toujours. les actes les actions yi nga xam ne day da nga koy def pour soulager nit dimbali nit et cetera. alors expérience boobu est-ce que amal na la njëriñ tey. Ah c'est une expérience loolu moom je pense que loolu bokk na ci li ma dimbali ba waxtu bi c'est-à-dire que moi j'aime bien aider j'aime bien soutenir j'aime bien écouter donc man bi ma même amee bourse sama nekk université par exemple ma doon grand place bi parce que attaaye j'achetais bu lu mu am dama koy joxe bokk ak nit ñi. samay ticket foofu laa ko doon teg comme je vous ai dit et à la limite on partage tout loolu topp ma ba ENA donc bi ma ñëwee ENA boobu la mes parents habitaient ici mooy kër gi ñu jëm nii léegi. li ma frappé woon ci Parcelles Assainies c'est cette solidarité qu'il y avait c'est-à-dire que li nga xam dafa commencé woon jeex Grand Dakar parce que Grand Dakar boobu fekk na mu màgg am saturation Parcelles Assainies nekk benn quartier bu bu yem à l'époque parce que kër yëpp kenn dëkku ci woon. les gens étaient en train de construire. Donc, ñi fi jotoon nekk, ils étaient très solidaires entre eux. Sans indiscrétion, J'avais la trentaine. la trentaine à, à l'époque. Euh, parce que bi may dugg ENAM, e j'avais quoi, 25 ans, 26 ans. Donc, ma nekk responsable et, et j'ai côtoyé les grands responsables, moo côtoyé leen ñu mag ñi nekk Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla. Et Mamadou Diop jël ma maintenant def ma à l'époque onzième sur la liste de Dakar. loolu moo ma tax a xam Ndakaaru parce que moom laa àndal en quatre-vingt-seize ci campagne bi ma nekk ci loolu ba deux mille mu am alternance ma bàyyi politique arrêté xam nga lu tax parce que booy def dans le social nit ñi mën nañ ko bañ a xam mais tu n'as pas de contrainte amoo benn contrainte da ngay def parce que mën nga da ngay def ngir yàlla ah, daa mel ni oto taxaw na de. bu ma ñëwee dimanche en général damay ñëw ci jumaa ji dem sunu kë dem ci sunu sama kër yaay à côté c'est à matul cent mètres fii la fii à côté jumaa ji sama ñoom wayjur ñoo fi nekkoon ñoom ñoo sanc jumaa ji comme ni ñuy defee jumaa ci dëkkuwaay yu bees yëpp de mën nañu wàcc léegi nga xool jumaa ji parce que dama fi jaar xool travail fu mu toll parce que xam nga maçon yi moom foog nga di leen di ah. pressé pour affaire bi mën a mën a gaaw mais xool si comme ça suba mën ko woowaat gis nga menuisier bi mi ngi nële xaaral sax ma. est ce que doo ñu jox chef de travaux yi comme ça ñu ñu toppal. xaw ma ndax mi waa kaay ma jox leen ko. waaw. <laughs>